comme ñu ko gisee ñoom it ñu ngay euh, xàccoo ci lan euh, contrat bi nga xam ne peut dañ ko bëgg si ak euh, benn entreprise turque loolu wax waral ñu génn di kaas mbir moom ba dànkaafu peut-être président bu bees bi nga xam ni moom mooy Bassirou Diomaye Faye dina réunion xalifa ñoom li ñuy kaas seen mm-hmm. àq seen yelleef la daanaka it lu jaadu la lu leen ñëpp war a jàppale la mais moment bi ñu toll tey ma dama naan képp kuy teel a génn di dànkaafu di woo basi président Bassirou Diomaye parce que nguur gi dem lu ñu fi xaatimul woon ba heure bii daanaka buñ ko fi xaatimee tamit képp koo xam ne yow lañ ko signeel jàppal ni euh, bu gaa yi ñëwee dinañ xoolaat contrat yi lépp lu ci baax danañ ko fa bàyyi yokk ko lépp lu ci baaxul danañ fexe jubbantiwaat ko it ba mu jub ba ñi ci war a jariñu jariñu ci kantaaka nag xalifa la ma la waxoon bërki démb uh-huh. lay waxaat tey am na certains syndicats wala ñenn ci ay ñoo xam ne nii ay forces politiques yuy organisé ci angle yu bari di organisé woon nu ne ngir lan commencé di tek ay pression ak ay menaces yo xamni niñ koy tegee moy di alerte président bi ñew te jëlagul sax fonction dañuy japp ni deug la kenn ku ci nekk sa ak sa yelef sañ nga ko xex mais président bi di ñew mom tiimagul sax dossier yi ba yeer ba xam li ci nekk d'abord nañ ko may battement état de grâce bo xamanteni ni li ci dess moy dañ ko koy gungé parce que rewmi khalifa at yi mu tok at yi mu yaq ak liñ fi yaq dafa bari lu koy lijjanti nak moy courage lay doon courage boobu du benn nit du ñaari nit faw équipe lay doon équipe boobu mooy askan wi taxawoon massivement génn dem ci urne yi ñu dañoo bëgg lële dàkk indi rupture askan woowu bu ñu dogoowaat ni ñun changement boobu développement lañ bëgg développement dañ koy am suñu bëggee ni avancement lañu bëgg avancement suñu bëggee ni jubal lañ bëgg jubal lañu am loolu nag mooy na askan wa mel lu ci ëpp seen njiit ñaari ca loolu la leen. Mhm. fekk si kon nañ ko gunge te jàppale ko wàññi jafe-jafe maanaam coow yi ak ñaxtu yi ba mu jël fonction ba tàmbalee doxal. su jubalee ñu tàcc su dëngalee nag ñoom nañu génn keneen génn keneen génn ak ña doon génn taxaw di def fas ak régime bi fi ne woon gunge leen ci xeex bi mais c'est pas le nag boo xamante ni tey jii euh, nguur a ngi dem équipe a ngi war a ñëw toogagul tiimagul dossier xamagul li xew daanaka kon am na yoo xam ne boo ko ci yuuxu rek. ak heure bi mm-hmm. ngay yuuxu dama naan lan la. Mhm. Mhm. voilà justement c'est important Adji Mansour euh, fan yi ñu gis que ni peut-être ñaxtu yi mu ngi commencé di bari ndax c'est le moment ñuy def li nga xamanteni mom moy yenn manifestation yi et autres vu que ni defuñ ko euh, ba président Macky Sall mom déjà jéxal na dafa war a dem euh, khalifa japp ma ni ñaxtu yi sax bëri na mhm. ay benn benn média yu féete ci politique wala yu seen ñi ko moom dañuy politique ñooy seet lu yëngatuwul sax ñu yëngal ko. Mhm. lu amul bruit sax ñu utal ko bruit dafa am lu ñu ci jublu mais xanaa bala ngay gàttanu bala ngay jàmbat yow ki ngay jàmbat falu yow président Bassirou Diomaye Faye falagul donc kenn mënut jàmbat ci moom très normal euh, nit ñi vraiment daal nit ñi war nañu war nañu jàng. jël une propre responsabilité ak seeni ay loxo di xam démissionné di xam gedd xam responsable mhm. par exemple boo jëlee histoire Dakar naa mhm. ñoom li ñuy ñaxtu gouvernement bu Sénégal jëflante ak ay turc dem rek maa ngi jooy turc yi yi ñuy def ci mhm. sans compter yeneen yi nga xamante ni bii euh, partenariat la suñu ak alors que respecté wuñu loolu parce que sénégalais yi amuñu jamm fañu nek ci ñom ci Turquie mais lolu nguur gi dina ko hein même sen visa ni koy jaay fi Sénégal te ñi mënuñu ko def ci beneen réew même gouvernement Sénégal da rek na ah. suñu gouvernement dina leen ni hey sen visa yi ni ngeen koy jaay du am demander len temps ak temps mais fukki junni doy mais ñaar fukki junni ak nangam pour visa Turquie gi te buñ ne mayu duñ la jox benn explication te bu leen neexee duñ la may awale ko ci beneen agence boo xam ne tukki yi ñoo ko moom. Mhm. Ousmane Sonko xam na lépp nañ ko lijjanti. loolu sax dagan na comme waa Dakar naaf li ñuy yëgloo joxe information wax société étrangère yi njombe yi ñuy def Sénégal xam nga bay nit ñi fokk ñu comprendre te bañ a diaboliser yëf yi c'est une occasion pour ngeen mayma ben 2 deux minutes rek. mo mhm. wax ak wa Sénégal par rapport ak tayou Sarr je vis démb ak tay dañ ko diaboliser bu baax té dafa lal ñaari aspect muy la sénégalité des sénégalais les mal intentionnés dañu jël discours orienté ko ni pël fouté lay waxal tayru dafa wax de façon globale mais si on waxé Sénégal mën peut wax ni Guinée ñu fi ëpp mais li fi ne ay ñak ay Nigériens ay Burkinabé ay Maliens ken xamul nu mu toll. donc quand on parle euh, ñi nekk Sénégal te ñu fi bu né mat nañu presque 10 millions parce que do ay Guinéens kessé mais ñi mal intentionné dañu jël wax ji ko guinéens yi alors que français les américain les burkinabé les malien les guinéen les Mauritaniens, bi képp ku nekk Sénégal carte de séjour ça doit être institutionnalisé ba képp kuy étranger Sénégal da nga am carte séjour mais mal intentionné démb ba léegi ñu ngi yàq ni musiba naan dafa dal ci kaw guinéen yi dafa dal dalu nationalité sénégalais yi ñuy jaay la wax Moussa Thiam yow victime nga ci. bu baax sa morom victime la ci. da ngay am extrait de naissance. Mhm. nga jël sa numéro. dem ci mairie bi bëgg ak bëgg amaat beneen extrait de naissance ñun la beneen tour ma fa nekk tayru Dany nañ dem ci ñooñu seen tour yi nekk ci numéro Moussa Thiam. ñu génne kooku dugalaat fa Moussa Thiam moom ñu lijjanti nu ñu ko utalee moom nationalité mu jaar ci yoon procédure normale.

li ngeen def ci ay audio ngir tontu Tahirou Sarr mi nga xam daa wax ci secteur bu maîtriser wul lan moo tax defoo leen ko woon bi ñu tegee loxo seen président ci wàllu politique de Fadilou Keita te Fadilou deful tous ngeen di def ay séminaire di def ay rencontre di def ay foire te du benn yoon ba ngeen defee foire ñu gis ngeen taf photo Fadilou Keita pour demander ñu libérer ko alors moo nekk président Adams yéen ñëpp ngeen noppi mel ni man ak ak Bàcci Sall ñoo ci ñoo doon dénoncé fu ma toog ni libéré suñu président te man bokkuma Adams man bokkuma ci élevage business j'ai mooy am na ay laadum mais bokkuma ci élevage business sama choix la euh, ma gis ku taxaw jënd xal 5 millions maye ko hmm. ci fi ñu toog may waxtaan sama beneen mbokk. mun ma gis nga li muy am am solo de man éleveur laa jaay naa sax xar 20 millions waaye gis nga finalité xar yàpp dong la rey lekk nga gis ni benn secteur la boo xam ne dafa bari ay interprétation ma gis ci benn xale boo xamante ni bëkki démb sama benn rakk bu ñoo bokk ndey ak baay dafa am mboteel laadum ñu fay ko ci un million cinq cent mu ni waa un million sept cent mhm. ñu def daal di xëccoo

ça à permettre nit ki ci walu jënd ak jaay mu def liko neex moo dul yoon sens bobu la doon waxe permettre nit ki muy jënd ak jaayee ni ko neexé moo dul yoon nan la xam na jaxé 1 million. Mhm. ok doko ko doko tontu da nga tayu kay mhm. mu ñëw nga ni ko xeyna maîtriser wo secteur bi gis nga xalé bi bi muy nekk ci bergerie bi ñu jël ko comme surga muy xont ay jur ba def fi ñetti at xar bi ko fayé doomu diw la di setu diw xar moom bi mu ci 5 millions la ko parce que kam race en même temps xamul nit dem dem dem Afrique du Sud jënd fa benn bëy à 500000 ñëw croisé ko ak benn bu mu Niger mu am benn race qui n'a jamais existé ci Moussa Thiam gis ko di pat pati ni waa ji am naa benn terrain kaay ma jaay la ko kaay ma jox la nga jox ma bëy bi. waa ji jël terrain bi jox Moussa bëy jox Moussa bëy bi musaa uti beneen bëy bu jógee Brésil ñëw amaat beneen race boo xam ne da exposé foire ku nekk naan lii fu mu jógee Moussa ne la fii ak ñaari at mën naa ci am ñaar boo bëggee fay ma nga jox ko 6 millions Moussa def ci poosam di xaar bëy bi am doom fekk Moussa xalifa bi mu jaayoon terrain bi moom. ba ki Moussa ba Moussa ba muy jënd terrain bi xëy 1 million la ko jëndé ñaar ñetti at après khalifa jaay na terrain bi 1 million kon xar bi la xa bi la khalifa jaay valeur 10 millions la légui parce que mom mom la jaayee terrain bi mu defoon échange ak béy bi ça dafa nek ben milieu business bo xam boo ko maîtriser wu da ngay wo tay ko niko bu ñuy wax xar jar na 1 million ak jar na 500000 lool la par exemple dama jënd ben xar 500000 sama xar bi yo bëng ko. Abou Sall bëgg nako Moussa Thiam bëgg nako Khalifa Fall bëgg nako ko Bàcci Sall bëgg nako kenen bëgg nako yéen ñëpp bëgg ngeen ci xaar yi amna fukki femel hmm bay Moussa dama naan Moussa Thiam yow boma fayé 1 million ma jaay ma jaay la benn bote yow boma fayé fayee 500000 ma jaay la benn bote yow boma jaay jaayee boo ma fayee 400000 ma jaay la benn bote kuy bobu mo tepp femel yi nekk yépp ci bergerie bi ñëpp doomam lañu am ay descendants lañuy am. comprends nga mais ben vous bi nga jënd woon cinq cent Vous 10 millions de bourgeois. woo mm-hmm. da ngay woo tailleur nga expliquer ko li xew ci biir business ko wax xamoo ci ak naan un million ah kay na millions tout de suite. Mm-hmm. tout de suite. Mm-hmm. parce que man damay am fukki femelle te parce que vous yi may gis xalifa jaay ma léegi benn màll boo xam moom la ñëpp yu wër. Mhm. bu ma gisee xalifa exposé ko 2 millions dama koy jënd xam nga lan moo tax. parce que après am naa 20 xar yoo xam bu nekk dina ma jural 2 millions ça fait 40 millions. Mhm. donc man damay jël 2 millions tout de suite fay ko xalifa mu jaay ma benn kuy. mu jël kuy boobu mu dem ci sama gétt sama bergerie 6 mois xar yépp am doom bu nekk ma jaaywaat ko 1 million ça fait 20 millions c'est-à-dire business boobu la tailleur comprendrewul bu ñuy jënd xaal ay 50 millions ay 40 euh, millions parce que loolu la da nga am ci ay femelle yoo xam ne produire ak mal bi nga xam moom nga jënde 20 millions da nga ci am 100 millions. Uh-huh. business boobu la maitriser wul mais bu ko waxee da nga ko war a jàngal mais doo jël sa temps di ko saaga di ko recadrer toute une Sénégal foog ñu passé stade boobu. Uh-huh. man nekkuma fi mu défendre tayoran xawma ko mosuma ko gis mosuma ko jox loxo itteelu ma man damay xol programme rek wax naa la programme bu baax ci Serigne Boub Anta Babacar Ngom ku nekk lu ma gis ci yow nii lu ma mën a défendre défendre naa ko ci wàllu programme mhm. mais affaire citoyenneté ak nationalité dama ko applaudir côté élevage bi li ci Taïro wax da ko da ko maîtriser wul du ma ko dal dama koy jàngat mhm. démb moi je dis bàjj mais gars yi di attaqué Taïro ñoom wax nañ dëgg de Taïro daa dugg fu mu xamul de mais daa dugg fu mu xamul du tax nga saxaw ko. daa dugg fu mu xamul da ngay fexe mu xam ko da nga naan Tahirou comme yàgg Fadilou yàgg Fadilou Keita yéene bokk xëy na benn coalition ndax na nga Diomaye mm-hmm. léegi Fadilou ñu ni Fadilou waxal waxal lu euh, mu tudd. Tahirou Tahirou waxal Tahirou élevage jàngal ko élevage. tout court mais mënu on peut pas un pays boo xamante ni bii Baye musa nit ñi seen aduna lépp fay wante ak saaga la ça c'est inhumain mooy li ma daa sama mbokk patriote ni leen seen adversaire bu leen ko def face dafa am doole nax leen ko ba toog fi mu toogee affaire bi mënuñu nit ki bu bu defee analyse ba jàngat ba jàngat ba noppi ñëw toog yow mënoo ko tontoo lu lu saaga mais tey yow a raison xal kenn xamu ci dudul yàpp lekk donc warut a jël cinq cent mais il a raison parce que foofu la ci xam-xamam toll léegi nag yow mi xam te moom mu bokk ak mu bokk ak Fadilou Keita benn coalition. Mhm. da nga naan Fadilou jàngalal euh, Tayo lan mooy élevage wala nga ni Ndiassé jàngalal Tayo lan mooy élevage n'est-ce mhm. loolu moo gën a logique. ma ne leen yéen ñi doon wax dem na pour tontu Fadilou Keita la moo tax woo yëkkatiwu leen seen kàddu bi ñu tegee loxo seen président. Mhm. ci façon boo xam du yoon lu légalul

maa ngi dégg démb ñu naan kii lañ bëgg a def nee moom lañ bëgg a def ministre de l'intérieur kii ba mu ñu ko defee àdduna tukki mën mën leen voilà voilà lii mooy kan moo xam kan la dañ lay tabb kan moo gis fenn fu ñu ne Tahirou day nekk ministre de l'intérieur kan moo gis benn yoon bu ñu ne Ousmane Sonko wax na kenn dañu lay fay dañu lay fal ministre léegi au lieu ngeen taxaw jàngal ko lan mooy élevage mais da ngeen koy saaga boo wax ci lu dëgg fa fan la nit dégg ñu ni. taxawal nañu gouvernement ba naan Tayour mooy nekk ministre de l'intérieur fan Tayour nag il est pertinent parce que dafa oser quand il parle ñu bëri di traité naan dafa réew parce que ci dëggam lay wax. Mhm. boo amee complexe nit ki nag dootoo traité logiquement li muy wax. loolu moo daloon waa APR Ousmane Sonko moo tax ñu ko doon taxé ku violent ku tàngu xol ku bëgg fitna. Mhm. alors que ñoom ñi manigancé di xëpp kaani di sosalaate ñoo bëgg fitna. Tayour am na ñu ñu ko attaqué démb tey ci naafeq dong lañ ko defee. parce que da wax ci da wax ci secteur bu mu maîtriser wu da nga koy jàngal maîtriser mu mu mu bàyyi ci xel. débat d'idée quoi mais sama way bëgg koo saaga toute une journée té yow bi ñu jàppee bu kenn ci yow secteur bi nga nekk doo yëngu doo yëlbu do wax. est-ce que xam nañu ren ñaata la perte ci FIARA bi doon am par mois de mars. bi fadilu dan jiite. non FIARA.

importé yenn yi composition la bu simple sénégalais def man amna naa benn composition xaal boo xamante mënoo fexe ba xam lan la charolais ak laadum ba noppi ma jëlaat seen doom defaat ci beneen composition kenn xamul nu mu tudd tey boobu noonu bu fekkonte woon ni gis naa ñetti nit ñu ko jox valeur mën naa ko jaay 5 millions comme mën naa ko nëbb bañ ko wane comme benn sama benn nattangoos éleveur mën na gis ni mu awas ah, waaye lii moom baaxul moom. mën na bu ko mbaa rey ko ñi nga gis ñu def élevage de la Doum fukk xar yu am doom am na ci ñett yu échec xar mi day ngand mais du rëy du mën a dem compétition dañ koy éliminer waa yooyu yëpp ci biir secteur bi euh, tayu xam ko. déedéet. kon moom bu waxee ni am xar mënut a jar 4 million parce que moom xamu ci lu dul lekk da nga ko naan lii moo tax muy jar 10 million mais doo doo jël di ko saaga Sénégal nag bàyyi. Mm-hmm. Bassirou Diomaye daa gañe mu taw xol yi féex. tàngu xol yeeg saagante yi ci réseaux sociaux yi xët xët jëg ngañ-ngañ ji booy na dakk booy ñun bashir la ñu am bashiran wa naziran wa daayan ilallahi bi iznihi wa sirajan muniran lamp ba tàkk na siraj munir dafa tàkk gars yi nañ leen féexal xol yi bu nit waxatee lu ñu arrangé wul nañ ko jàngat débat d'idée quoi moo woyof yomb nañ bàyyi saagante yi tontuwante yi ci réseaux sociaux yi te ngeen wàññi groupe whatsapp yi Qui yi dañ ko parce que ci la daan comme légui nak ay par amatu ngeen transformé groupe whatsapp kay la jaaduwul kay la jaaduwul kay la fimné liggéey Sonko ak le wax groupe whatsapp yi allez travailler wala ci groupe whatsapp groupe whatsapp def ko ay boutique yow nga ci jaay café di ci jaay ki di ci jaay ki di ci jaay Transformer vos groupes whatsapp by ay ay milieu élevage bii nii am na benn groupe WhatsApp boo xamante ni bii business laa dum la tudd xar boo am di ko jaay wala pitax fa koy dugal balaa ngoon mu jaar man ci laa bokk ñu bëri ci lañ bokk ci def seen ay business di jënd ak jaay. Mhm. pourtant ki ko créé docteur la docteur moo créé groupe WhatsApp boobu tey bu ñu la waxee ñaata magistrat ñoo nekk ci milieu élevage doo ko gëm bu ñu la waxee ñaata inspecteur impôt et

sànnantey xeer def nii nañ génn ci loolu wa daayan ilallaahi bi isnihi wa mu muniran xalifa hmm. na lépp bég Basiir bégalante bégalante bégalante bégalante Basiir Basiir quoi Basiir bégalante bégalante voilà saa yaa mu ngi nii kii inspecteur impôt et domaine la dem leen Bergeron Thiès ngeen xool kon kii bu toogee ak tayiru dina ko xelal mais ñëpp ku nekk sa xoola xari xar yi xari xoola ya yi muy yar yii nii fi nekk nii bu la impressionné pour nga dugal ci 10 millions du dara gis nga ki bu la impressionné nga dugal ci 5 millions du dara ay jeune mâles yi amaguñ sax at ak genn wàll. waaw bu la impressionné nga dugal ci xaalis loolu tey xam ko dang ko koy xamal mais saaga rek. saaga de solution. solution waaye. Hum, voilà mu ngi non kon dañuy dem ci revue de titre